lañ bëgg woon bës lañ bëgg mhm. ñoom ba ñuy yóbbul Mame Ndiaye Mame Ndiaye dara si dëkk bi Mame Ndiaye simple waxkat la du tus si dëkk bi ngank da nga koy yóbbul ay carte invitation jeune loolu mooy Mame Ndiaye du n'importe qui ba loolu mooy ji loolu mooy perte la loolu mooy jeexal loolu mooy xamatoo looy def ay Mame Ndiaye ba mu demee ban bës la fa am lan lan la leen apporter lan la leen jëriñ bëri na bëri na Maam Ndiaye am na ñoo xam ne hmm. tey Maam Ndiaye moo Maam Ndiaye Maam na am na ñoo xam ne Maam Ndiaye moo leen fa yóbbu. simple jaaykatu savon kese la. Maam Ndiaye nag Maam Ndiaye nag ku koy nangul Maam Ndiaye même bu nekkee jaaykatu savon wala mu nekk simple jaaykatu savon Maam Ndiaye Sénégal ñëpp xam nañ ko wala international ay pendo lu mu woy yow la mu la métti la woy. kon kan kan lañ yóbbu yow ku la xam ne. moo ma jaaxal. kan lañ comme importance man moo ma jaaxal. Pape Diouf demoon. Sidike Diabaté Pape Diouf la. maa ngi koy siyaare ba di ko gërëm jàmbaar la. Sidike ndaanaan la Sidike ndaanaan la ñaari ndaanaan de laa fa gis. a part ça ñaari ndaanaan gisaatuma ko keneen. donc El Hadj Keita demoon ñaari ndaanaan laa gis Zénith man man wóos man la. Hmm. Pape Diouf Sidike Diabaté. ku ndaanaan bu fa demaat. du man maay wax amul ndaanaan bu fa demaat. mais wóos d'accord naa léegi ba léegi ci Matar Diop ñi nga xam ne te yóbbu na leen ñu tay tay danaka sénégalais yi ñu ci bëri Matar job ñu jégué won tay Siri job doon ko kotuwaay Matar mm-hmm. yóbbu na leen mm-hmm. té dañuy gis wali Seck bu gën tourner à chaque fois mm-hmm. manam mom boy moy wa ramdan kèn du len du yobu kèn yow mi do dem duma gis Cheikh itam du gis ko xamné ni bokku na ci influenceur yi di cas à part Omaro gisuñ koy dem Matar Matar lu ko war la def suñu dañu yàgg liggéey ak mom yag yàgg sonal Matar yàgg wal dem waaw tan wa déglu ma rek yag guddil Matar yàgg sonal waaw moo tax ma daal am xol bu baax yu yóbbu leen ñu demaale loolu dara loolu xol bu rafet la. d'accord waaw mu daal dafa am xol bu rafet boobu noonu moom bu dul dara am na bu rafet boobu moo tax mu jël leen yóbbu leen loolu problème ci moom. ay gars yi nañ leen code foofu de. waaw non waale ñu man sama bopp laa xam ne xaw ma keneen mais man waale damaa taxaw ne man toppee mu waale pour ay tukki. Hmm. lu ne barki Seydouna Mohamed barki maam Serap Fall mi ma yaakaar. Hmm. toppee mu waale tukki. lu waaw lu jot yomb. waale ay affaire am lu jot yomb. waali affaire am lu jot yomb barki Seydina moom te képp ku muy li ma wax sànq rek waali képp ku muy àndal defan dina la loo xam ne sax yow mënatoo ko koo fay ci àdduna yaa ngi dégg mhm. ay mu yóbbu nit mu tukki moo gën a ndaw mhm. moo gën a ndaw ci li muy def ay yóbbu nit muy tukki nii moo gën a ndaw ci lu waal bi def kon bu ko neexoon waali mu buub leen ñëpp ngeen def hmm, loolu lay waale waale bu ko neexoon ñëpp lay jël yóbbu ñëpp ñëpp lay jël yóbbu loolu problème ci moom mhm. waaw te bàyyil ba nu jàpp bàyyil ba jàpp Bercy suñu berse bi di ñëwaat nii. Hmm. daa bañ jàppaat ko. mais ñu gis ne Sidi Diop moom daanaka bu organiser lu mel ni genre Zénith yi mu nekk international wala mu nekk Europe wala fu mu mën ne. Mhm. après ay retour da ciy am. Mhm. est-ce tey bii yoon jàpp nga ni tey boobu dana ci am ndax bi yoon Matar yóbbu na te yóbbu na ñu bëri aussi. est-ce que mhm. tey gars yi daal conscient ba nga xam ne tey duñ décevoir ki nga xam ne moo di artiste bi. bañ a faa toog képp kuñ fa yóbbu daal nga gore rek na nga gore loolu loolu laa si lu may wax. Hmm. képp kuñ fa yóbbu. waaw na nga gore nga ñibbisiwaat ëlëk boy dem mu mëna a neex ay yóbbu nit muy daw loolu du yëfu gor d'accord gor du def loolu bu ñu la yóbbuwee nga xam ki man dama jappalé avant may am parce que tay nit a bëgg a tukki ay ati ati at di ko lijeenti mën mënul dem tukki da nga jar sax mu dem jaar ci geej gi dem ci gaali ba ba ñak fa bakanam yow nga tok nit dimbali la jappalé la lijeenti le visa yow passeport nga lijeenti mu lijeenti le visa dagal le billet yóbbu la nga la waay boo goree ñibbisi waatal ëlëk boy dem mu mëna a neex mën ngaa ñibbisi waat sax ëlëk nga dagalatal sa bop billet yow dem te kenn du la dagal billet mhm. bu waa boo toogee kenn lu tax mu topp sa yaa dagal sama billet nga dem sa yoon mhm. parce que am nga passeport may nañ la visa mhm. ëllëg boo ñaanaatee day yomb ci yow waaw foo côté boobu loolu sax mooy nañ gore a fii ci Sénégal mu war a wàcc aéroport gaa soo bus bi mu war a topp seen ginnaaw ah waaye hmm. retour Waly laay xaar la sept wala le huit bi mu war a ñibbi Sidy laa la posé question non man retour Waly man dama ni je t'ai posé une waaw Sidi Diop est-ce que yéen a koy bàyyi xel mu war a ñëwaat Ndakaaru fii war a jàkkaarloowaat ak yéen. nu muy jàkkaarloog ñun ñun ñoo ko ci bépp côté. Ah, fi eh, nii nag ah. kan moo koy teeru ban drapeau man ma am ndam. mu déggoo li ma la man su ma amee sama artiste laay teeru muy bi da leen a jege trop. nu mu ñu jegee. non booy bi la ñu am moom benn album la am. mu boo xoolee nag fi mu toll seen ginnaaw de. Hmm. waa na ñëw. Hmm. na ñëw. waali moom gone koy dëkk mais ma ko koy daan. Hmm. na ñëw. li ma war a wax rek waali moom bis ku dof loolu ba dugg ci caayam jiyee dañ ci bëgg a génn muta la. Hmm? ah xanaa da ngeen fàttali ne barki démb mondial la ko waali amee ay millions bu muy dem sini waaw ah, loolu la participation la est ñëpp defal nañ ko ko ay ay wax lañ ko rayee de ak ay conseils dul jeex mais le conseiller mbërum làmb gars yi jox nañ ko de wala nga ni kenn joxu ko men Wally rek moo tibb jox ko ma maay wax ak kenn joxu ko ci waa Permbaw dong dia. Mo permbaw. Do mo nagkasara kay. Permbaw na ko sara. din din din len jek ak ak ak nu sonné nonu quoi. Waxa degol mi Man bu wéso mbalak yi may mbalak ci ni. Ah diga togn ni parce que permbaw dama ka jappé comme eh, mhm. ya, sama mam. Yaay di xam mhm. mhm. eh, eh, sama mam dama ka togn diko mbalak. Kamran nga nan ko ma sa Di mbalak non diko togn. Man la jappé permbaw. Permbaw dama ka jappé sama mam. Comme la bu may xolé sama mam bët boobu laa xoolee per Mbaw mhm. yaa ngi dégg mais dama ne la Père Mbaw daa bàyyi lalam bàyyi ay doomam mhm. bàyyi soxnaam mhm. bàyyi lépp Père Mbaw da nga koy da ngay romb almadi da ngay dem almadi romb ko cinq bu ñuy joué ñu nga romb ko baara mundi cinq heures du matin nga xëy romb buntu faay buñ di joué faay ci magum jëmm mu toll ne Père Mbaw ko xam am na ay bijaaw comprendre nga muy bi Père Mbaw da see communiqué communiqué bu am solo ànd ak ñoom fu ne dem xol ko eh, ya imaginer Père mbaw ni ni mel mag mu ni Père mbaw di taxawal ay xale yu ndaw ah nga am sa bis bi waroon ngeen waron nañu fayé Père mbaw lenen lu li barki sayyiduna mohammed xam nga damay wax sama wax ñu wës dafa rew mhm. man rew ma de damay wax deug mhm. xam rew ak wax deug bokul man damay wax deug mer dama rew mhm. ya deug Père mbaw nañ ka fayé lenen lu li barki sayyiduna mais yow mais yow euh, kan nga jàpp ne à part Père mbaw mom rek lañ ci bàyyi wala. am na keneen koo xam ne nii waroon nañ ko yóbbu yóbbuñ ko. non man Père Mbow rek laa gis nag. gisuma keneen. Père Mbow rek laa gis. Mhm. gisuma keneen. accord accord moo nekk am solo euh, comme ni nga ko waxee rek gars yi comme euh, ñi nga xam ne yóbbu nañ leen kon. Mhm. nañu fexe ba nañu dellusiwaat ci jàmm. waaw nañ dellusiwaat. pour bañ a gàkkal mm. artiste. waaw pour bañ a gàkkal seen artiste ñoom. Mhm. parce que seen artiste moo tax ñu dem. bu seen artiste ñoom duñ dem. yaa ngi dégg man Sidi bañu ma ko. yaa ngi dégg. Hmm. du ay noon du ay dara. Hmm. bañu ma ko. ci Zénith bi ñu ñëw euh, Sénégal mu amoon làmb joo xam ne làmb ju neex la euh, dimanche passé euh, diggante doxoon diggante kii nga xam ne moo di Gris Bordeaux ak Ama Baldé waaye gis combat yu neex am nañ ci aussi mais Papa Boy Djiné da cee amaat défaite Sénégalais yi yéene woon ko victoire ba jàppoon ne sax dañ ko doon xaalal yoon ngir jox ko Tapha Gueye numéro 2 mais défaite la ci jëlee daal di teg ngeen ma loolu lan nga ci mën a communiquer sama xarit bi <laughs> ndax waxoon nañ ci ay jamono. Papa dama ko yërëm. Hmm. waaw ma man papa boo jinne dama ko yërëm hmm? barki maam Seera Fall damaa yërëm papa boo jinne da ko yërëm barki hmm. li ma man sama xol laa ko tibbee man su doon maay joxe ndam papa boo jinne da am ndam man ma doon hmm. na ma koy wax rek na jàpp rek te ci moom bu dagul dikk adduna ak lii ñoo ànd faaw muy metti mais du tee ngay gëm yàlla doyloo yàlla mais faaw muy metti barki Serigne Touba Mbacke lamb la nag waaw parce àdduna moom boo si nekkee ñi ñu bëgg ñi di bañ. Mm-hmm. parce que Pape Diéne jabaram sama xarit la. ñu Ndeye waaw sama xarit la waaw faramaareel la fu fu fu dajeeg man damay dañ tooñante ak man. Mm-hmm. di kaf ak man di reetaan ak man. Mm-hmm. waaw Pape Diéne moom ah, yàlla na ko yàlla defal jàmm rek nattu yi yàlla tegil ko ko. waaw loolu loolu laa koy ñaanal. yàlla mën na ko. mais tey est-ce que euh, defu nekkul ne comme euh, maanaam loo ñu ko def la wala dara parce que gis nañu à chaque fois moom. Ah, da koy teg au koy jox gëddaam jox ko li mu yeeyoog yëpp mais bu ñëwee daal ndam bi du féetee ci ko dem man gëwuma yooyu man gëwuma ne luñ ko def la. Hmm. dama am mbiru dama yaakaar ne mbiru suñu borom la rek. Hmm. mais gëwuma ne luñ def ko Alla quoi parce que doom nit ki du soxoree noonu ak loo nekk sëriñ sëriñ sëriñ moo waroo noonu ak luñ la def luñ la def luñ la mënti def ak luñ la tooñ tooñ tooñ koy tooñ muy jégale. Hmm. ak di jëlalee. kon man sëriñ warul def loolu bu fekkee sëriñ ñu ko def dañ koy ñaan rek. mu dindi ko. Mhm. Papa nekk ci jammam wa mhm. bi beure di am ay ndam. Mhm. parce que man mo wax de yalla day muy beure sa dama kay faral. di ñaan yalla yalla ko yalla may ndam. dama tok fi sa diko ko ni nan naan papa yalla ko yalla may ndam. Oh, barki alquran karim mu ñu tegante beut dama tok nan naan papa yalla ko yalla may ndam parce que ma ko yërëm. billaahi wallaahi wa taalaahi. làmbal nak na japp lek yalla baxna mais en tant que sa mak euh, sa xarit Ndeye gey euh, euh, tey boo ko doon yokk lan nga ko parce que critique yi bëri na ci mom Ndeye bo lo xool tey sonn na Mhm. mi ngi recevoir message bu ne te moom deful dara mhm. soxna la rek comme soxna yi ah. yàlla moo ñëw te yàlla mooy dogal mhm. moo xool lu ko neex mais boo ko yokk tey lan nga koy wax waaw ndege jigéen bu baax la ndege jigéen bu baax la bu fekkee ay jigéen ñoo koy xas ñi koy xas ñëpp moo leen gën hmm? parce que ndege mi ngi ba ko papa ba ko papa fa mu ko tegoon ba léegi ndege musul tas de musul pas fa ko papa tegoon ba boo demee fekk fa ndege ñoom nag dañuy fexee li ndege am ñu am ko parce que ñi ngi aase ñi ngi màgget sëy wuñ da nga gis ku sëy ñi xas ndéygay booy xooloo ñoom ñëpp bu ay jigéen la ñoom ñëpp amuñu jàpp amuñu jëkkër xale yi demuñ ñu dóor wuñu atte wuñu xeex ba jàpp naan ndéygay ndéygay na ba pare naan ndéygay ndéygay ñoom ndéygay moo leen gën wallaahi ndéygay moo leen gën hmm? parce lu mu bon bon bon fa ko papa ba léegi mi ngi fa mi ngi ci sëyam di sëy kenn xamul dara buy sombi buy ruy kenn xamul ko dara hmm. ñoom lañ fexee am li ndéygay am papa mbër la day bëre yàlla nag mooy joxe ndam bu ndéygay doon joxe ndam papa mooy am ndam hmm. mais joxe joxewul ndam joxewul ndam yalla moy joxe ndam papa li ko dal ni nattu la te nattu kep lu ñep lay dal mhm. am mbeur yo xamanteni ni si nañ bay bay bëri mosu ñoo am victoire ay mhm. def rek lañ am mhm. papa nak ndam dina ñew te ndam ngi ni ci kanamam li nattu la rek yalla ko yalla teggi amin amin non lol lol lol essaruñ ko laaj estafa papa waa kay mooy kuñ ko wara jox rek mu bëreeg mom parce que lamb la joranke kon yow d'accord yi gars yi naan dafa war a bàyyi dafa war a bàyyi ma bu mu xàddee ay bàyyi la hmm? mais ba tey mën naa nekk làmb mën naa nekk làmb si mën na koo jël bu si fi mu taxawee nee na kenn bu daanu kenn kenn ko daan noonu lay bëree jamono ji waaw mais làmb la ñoom ñaar buuse mbër la man nañu nañoo man nañu nañoo bëre ma Papa Sow may mom moko ko jël buuse da ya 10 ci moom. Hmm. waaw buuse dafa 10 ci mom da ko Tafa gay dan moom mo ah, dëgg fa am buuse. waaw buuse dafa 10 ci mom mo don mamou moom ko jël damay jëma xol rek yaa ma gën bari nañ fi boy bari nañ fi. Hmm. papa ki te papa bari bari mo papa bari bari lamb la. no papa Amba dafa 10 ci moom dafa diis. Hmm. Kan kan? yii yo ah bu ñu lay papa. <laughs> ñu mun leen da ala bu ñu lay papa nag. mënut a daan ñu <laughs> mais nag nga jàngatee Gris Bordeaux ñu ci bëri neen daa showbiz làmb ji maanaam day day business làmb benn coup rek la jël na bana. non non bëri wax di wax xam nga nit boo maîtriser wul làmb da ngay téye sa gémmiñ. wax mu boo maîtriser wul dara da ngay téye sa gémmiñ. wax dëgg Gris Bordeaux duñ ko fay ay million mu dem préparer. Hmm. ba sonn ci bay bëgg dee ànd ak ay mbokkam def si ay millions ñaanlu. Hmm. entraîné ba sonn ku ne gis nga dindi ni mu méttee weññi ni mu méttee nga yeewu fajar bi dem entraînement 18 heures nga dem entraînement. Hmm. ah. ñëw nga ne da ngaa da ngaa da ngaa soo bis làmb ji non non loolu mënul mënu ma ko gëm. Gris de Ama Baldé da ko dóor coup bu dal. Hmm. da ko dóor coup bu dal. Hmm. yaa ngi dégg Gris am problème bët bi am problème. médecin yi làmb ji ay médecin ñoo fa nekkoon de. Hmm. médecin yi xool ko ne kii mënul bëre. seen seen mënul bëre. lu ci wax Gris dajee mën dara. mënu ci dara. ñu jox victoire bi Gris ba léegi ndigam laalul suuf de. man Ama Baldé laa faraloon man. man Weuz Ama Baldé laa faral te moom laa doon ñaan yàlla may ko ndam mais ku ne da ngay wax sa akulaay temps la mm-hmm. Gris dañu ko fay ay millions mu ñëw di commune bëre kon d'accord d'accord ma loolu a loolu Gris Gris du def loolu mm-hmm. waaw Gris moom bu Siteu te amati na defet bu di ko ñaan di ko ñaanal yàlla yàlla xaar ko àjjana mm-hmm. waaw tey bu Siteu dafa gore rek mais am na ñoo xam ne boon ñoom duñu bëri waaw parce que kooku dafa jege def ko sori quoi a ah, Siteu làmbam bi moom mooy loolu quoi vraiment. Mhm. mais Weuz man gëj naa dem mariage de nga ne xale yi sëyiwuñ. xale yi pousse passe bëriwuñu àtte wuñu xeex. Hmm. kenn sëyiwu ci dañu doon xool benn paa boo mën a këccat da nga këccat ko lekk sa weccat. Ah. toog wéeru loolu lañ fi nekkee. loolu xaw ci loolu dëgg mu loolu dañu xool benn mag mu waaye nga jàpp ko ci ruq gaan di lekk lam yor. Nuhusna mah problem kali juga nuhusna. Belum, kali aku problem gidda ke bisa ne kada da oh, wasa aku lai taala. Da da gede ya lebih parah eh, wasa aku lai taala me bala bob sama ber bilang ke tegal mu bare ras Ah ras, Wow, da fore bare. Desan. Ku tegal mu bare. Baceras eh baceras eh No no. Sama boji na komal. Man liman khari. Liman khari. xaju sax ci émission bi lool benn émission la waaw hmm. ah, parce que Pikine bu ne 100 pour cent Pikine hmm. dëggul dëggul non dëggul du dëgg Ah, bu ñëwee ah. cent pour cent boñaa bu ñëwee taxaw ah. mabala ñëw taxaw soq ñëw taxaw beneen mbër ñëw taxaw hmm. te bokk boole mu ci bàcc seeraas du dëgg hmm? pikin man suñ na xën na bu dul ñoo wax jël bàcc seeraas seppi teg na le te bàcc mooy pikin ta waaw te bàcc mooy pikin man benn mbër du bëre ma dugal la estati mbëru pikin di bëre déggoo ma de man benn mbëru pikin hmm. du bëre mal dugal ko estati man li ñuy ñi bii sama estati gis nañ ko barki Sëriñ Bamba Mbàkke parce que man ku boolewul bac seeraaj sa dara man man duma la bolé ci sama dara. d'accord waaw man ku boolewul bac seeraaj sa dara man duma la bolé ci sa dara. mais yow sans bac seeraaj rek nga jàpp ni Pikine du 100 non Pikine du deug Pikine buñ xamé lamb bac la buñ bëggé lamb bac la barki sayyiduna muhammad te mbeuruk Abonnez-vous, ciao le Sénégal Abonnez-vous, ciao le Sénégal. Abonnez-vous, ciao le Sénégal.